Touba tey ci guddi laylatul bésu guddi laylatul xadar la dama bëgg bëgg dem yóbbu Touba dama bëgg yóbbul sama mag sëñ Touba sëñ Fallou donc bëgg yóbbul ndogu ndogu bi ñett wala ñeenti ganaar la woon mu def ko ci benn paan et benn bool plutôt benn bool ñu jógee Eh, Touba ci ci jóge Daaru Musti ci ngoon gi yóbbu ko Touba ci la jëkk jëre gise sëriñ Fallu booba yoon amu fa booba ay piste la ñu amee booba xàll ay xàll la ñu amee xam ne dafa bari suuf ak yooyu oto benn oto man sama oto 4x4 la woon booba booba oto 4x4 bariwul ci réew mi et eh, moo tax mu mën ko jël dugal ci oto bi yóbbu ko ndax bu dul woon kat kat du mën jàll. du mën jàll ndax suuf si. ginnaaw loolu raay bi mu ngi yemoon ca gare bu mag ba te gare bu bi ak dëkk bi ak jumaa ji ñaari kilomètre la te mboolem matériel bi ma fi ma sa wàcc bépp ciment weñ leneen foofu lañ ko daan jëlee di ko indi fii sëriñ bi bëgg lu gën a noppal nit ñi bëgg lu gën a noppal itam ñiy liggéey. tax mu jële fa raay bi indi ko ba ci gaar bu ndaw fii nga xam ne di kon diggante fi mu yemoon ci gaar bu ndaw mooy fii essence bi nekkoon ak jumaa ji juróom-benn téeméeri mètre la xam ne day tax wàcc marché bi gën a gaaw day taxit bu dee jamono yi màggal nit ñi gën a jige dëkk bi. marché Ocass gi it moo ko sañc euh, ñaan fii wax ne képp ku bëgg dara dana dana fa dem ndax booba. marché bii booba kenn néew fa ab gott la itam te rab bu ñax xam ne gii buuse daal moo fa newoon di xor-xor yi mu képp sëñ bi joxe ndigal ne euh, la marché boobu moom marché sëñ Tuubaa la te képp ku bëgg dara na nga fa dem. ndax marché bi dara mosu fee nekk li ko tàmbalee ci kër sëñ Fallou ba kër sëñ Ñaŋ Guy gi lépp ab àll dong la woon. ngeer la woon kenn dara nekkatu fi xanaa sego bi te seko bi booba dañ ko def ci digg àll bi loo ma sa soxla feneen nga koy jënd ji ci biir dëkk waaye dara ma su fi sëriñ bi ñaan ci boppam joxe suuf ne nañ koy buccee foofee def ko suuf soosee moo indi lii waaye ba léegi. léegi nag nañ marché yi du jeex mënuñoo fexe ba. mënuñoo fexe yëpp fii fii dañuy bàyyi ko ci marché bi nga ñëw nga ñëw fii <laughs> su jeexee jeexee nga nga delloo waaye kenn mënatoo. léegi gis nga ne marché bi man fees dal lu waay deyaay indi ko fii lépp lu nekk ci koom-koomu àdduna bi ak Sénégal ñu ngi koy indi fii ngir bëgg mu jar te day jar gox yi nga xam ne moom wëri réew yi wëri seen marché bi yëpp ñu ñëw fii. muy léegi di barab boo xam ne kenn mënatul dox sa itte ci réew mi ci maanaam wetu économie te jaaroo fi loolu ñaanam nga ko def mbirum armeel yi la ko jiitu ab ñag moo ko ñagoon ñagu salaan ñagu tëbanaani ñagu ngeer moo fi newoon ku ñu wax Alaaji Abdu Asiis Mbay di taal bi sëñ Fallou moo dikk sëñ bi ñaan ko ndigal ni ko boo ma mayee ndigal danaa ko miir sëñ may ko ndigal mu miir ko miir boo xam ne bii miir en dur bu kawe ba mu nekk benn bunt loolu sëñ Fallou koy def ba loolu àggee fii nga gis tey ñu di fi jullee ñi ato sëñ Fallou ko fi de moom itam ndax moom itam Alaaji Àlla Samba Guèye <coughs> taalibeem bu mag bu nekk Kolax boo xam ne moo doon représentant moo fi doon baatam moo waa daayira Kolax ñoo ñaan sëriñ bi mooy leen digal ñu def ko fi sëñ mooy leen digal ñu tabax ko moom ñu Cheikhuna Ahmadul Xadim dafa waajoon a bëgg a aji ba ba wax ñi nga xam ne ñoom lay àndal wax seeni jëmm am na ci ñoo xam ne ay ci jege ñaayal yi ne fii lañ am na ci ñoo xam ne naari gànnaar lañ waaye taalibeem lañ mu tudd ñam ñay dem wax itam yoon wa na muy demee waaye ba mu ba mu demee ba dara desul muy dem ñaari gàllankoor am ñaari gàllankoor bii bi gàllankooru baatin la benn bi bu zaahir la ndax dañ ne ko bala ngaa mën a dem da nga bindu leetar sàkku tubaab bi ndax yow fii mu ne tey fii nga ne sago bàyyiwu la fi tubaab bi iqaama ijbaar iqaama jamriya la nekkoon ci jaareem ba mu jógee ci géej ga ba ba ni ñibbisi fu mu nekk rek tubaab yi ñoo ko fa ñoo ko fa teg ci jàpp ne euh, ci seen coobar la war a nekk ñeenti ati gànnaar yu mujj yi juróomi ati ci yéen jolof ak fukki at ak juróom juróomi njaareem fu ci ne iqaama jamriya la ñu ne ko nag bala ngaa mën a génn réew mi da ngay bindu leetar sàkku sàkku bu baax a baax ne nangam nangam mooy nag loolu moom euh, bi bi la bataaxel ci sàkku jumaa ji bataaxel ba sëñ Mbàkke bu soo ko bind sëñ bi bind ca suuf mustaktibu haati nangam nangam Muhammad Muhammad ibn Habibillah loola euh, ñu autorisé ko waaye bind bind tubaab yi daal di sàkku ay génn daal kon nañ ko bàyyi bi nag te boobu mooy bëgg na kii dañ ne dafa wax ni yëg na ne ni mel ci Moustapha sallallahu taala alayhi wa dem ba ba egsi fi nga xam ne fii la Moustapha tëdd loolu moom euh, su fekkee roog yaram yi àttan na ko it roog yi du ko àttan su fekkee yaram yi dana ko àttan roog yi du ko àttan kon nag euh, na na ko na rek loolu gannaaw xalaat na ko yàlla dogalu ko ci zaahir Cheikh Amadou Fadil dal moom loolu moom kon da koy mottali aj googee génn aj la ci yoonu murit ndax ña ca àndoon mënatuñoo àndaat Cheikh Amadou Fadil di jëmi Sëriñ Touba Sëriñ Gaawaan di rakk Cheikhul Khadim di taalibeem bu am ngërëmam sëñ Mbàkke bu di di di rakkam di taalibeem bu am ngërëmam fees dala xam-xam ak ñañ àndaloon ñooñu yoon amatul beneen délégation aj bu mel noonu nga xam ne aj mat na ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent genn aj la aj gi mat na ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent ndax ñu ngi jógee Touba fukki fan ak ñeent ci weeru koor 1346 ñu ngi delsiyaat Touba ci bésub 8 Muharram 8 Muharram 1347 ñetti weer ak ñaar fukki fan ak ñeent la aj gi doon waaye fu nekk lañ dem fu nekk Liban Égypte Syrie fu ne te fu fuñ taxaw rek sëriñ bi bind na bind na ko ba mu àggee ba jàkkaarloog Moustapha daal di wax ne fa min tuuba bi taybata qad nazal naa nazuru sayidal sahmal humama fa man zaara alhabiba wa saahibahi fala baxsan yaxaafu wala malaama ayaa xayral anaami wa mustafa yi diggante dariix bi ak mimbar bi guddi keroog la fa jàng alquran ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan la ak benn ci dil qaada mu tarifa kaamil bi daal di koy def addiye seexul xadim ba muy dépasse sax jógee tubaa la ne dama bëgg aji néegu ba néegub yàlla bi siyaari ji Moustapha maa yaar yooyu yool ba ma ca am def naa ko addi sëñ tubaa ba mu ñëwee Madina Munawara Madina Munawara julli na fa ñeent ñeenti ajjuma weer wu mat la fa am ba mu fa njëkk ñëw rek la jàngab kaamil ci guddi gi tari ko dama ko andi Sëñ Tuubaa bés ba ñëwee Màkkatul Mukarrama foofu it defal la su moom defal la ko fa loo xam ne néew na ku ma dégg defal nañ ko kaaba gi ci bopp dañ ko ko ubbil mu dugg ci biir ñeenti ji yëpp bu ne mu julli ñaar rakk ñeenti foofu duñu wax xibla ndax xibla bi mooy kaaba gi mooy kaaba gi danga kii kii wan jant bi penku kii wan kii yépp kaaba gi lay jiw mooy xibla bi waaye moom ñeenti jihe yi ci biir kaaba gi la dugg jihe ba ne mu julli ñaar rakk jàng na itam ci kaaba gi foofii ci kaaba gi ñaari kaamil defal ko addi Sëriñ Tuubaa nga xam ne lu mu yëngu rek lu mu yëngu rek defal naa ko addi Sëriñ Tuubaa waaw xam nga sëñ Fallou da doon ko woyofal boppam yàlla da koo diisal gan bu fekkoon woyofalu boppam kenn du ci moom waaye bëgg nit ñi ak yërëm leen ak bëgg leen dimbali dafa tax dafa woyofaloon boppam lool lool lool lool ba ak kenn ku ne boo ñëwee day wàcce boppam ba toll yow ba nga ñime ko ba mën a bay kaf yow di yow sax di koo xam ni kiit soxla woon ci àddina dara dara ci li ñuy wax euh, orgue wala titre wala mm, euh, daraja soxlawu ko woon loolu moo tax jëfante mënoon naa jëfante ñëpp te jëfante nag ñëpp ñi ma jamonoom ak lu waayu man rëy rëy rëy ak lu waayu tuut tuut tuut dina mën naa jëfante yow te boo dikkee ci moom rek boo ko jógee soxal sedd ba looloo tax amante woon na ak mboolem ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci réew mi te kilifa yi diine ay kilifa yi ay ngir amoon na leen ñoom ñëpp seqante ñoom jàmm ak sutura ak teranga ak masla ak diggante yu neex lool Cheikh Seyd Mahamadou Fadou Mbacké ñi mu jamono teel ñëpp daf leen daan jokk ñu di ko jokk ku mel na cheikh naa cheikh Taalib Wuya wul du cheikh <coughs> euh, Saadu Abi seen jokkoo rafetoo woon na lool lool noonu la doon jokkoo mbokkam mu baax mi mu jamono <coughs> Seydina Issa Laye caw fii ci Cap Vert dégg naa ma suñu umpante ci dara lu soxal diine daan nañ ci joxalante kàddu daañ ci yebalante ay ndaw <coughs> pour bokk ca wax suñu waxee ba pare tànn ci la wax loo xam ne dana nekk njariñal àdduna ak àllaaxira bari na photo yoo xam ne soo ko seetee daa gis ñu bokk ci ant noonu nii la daan jokkee mbokkam ma di suñu maam Cheikh Hadji Seydou Nourou Tall ma suñu umpante ñoom ñaar ci dara dara dara noonu itam la daan jokkoonteeg suñu wajuru tedd wa dalika al arifu billah Baye Khalifa Niass mu xam ñu naan ko Mouhamad Amina moom mi nga xam ne baayam yónni na ko yebal ko ay yoon mu ñëw njaareem fekk fa sëriñ bu mag ba ak ya nga xam ne dox na ci diggante suñu ñaari maam yooyu ak xasida bu rafet ba nga xam ne def na ko moom si Baye xalifa Ñas waaye xalifa euh, xasida bu rafet ba nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadil ma nga xam ne kaana kaatiban wa kaana shaa'iran wa kaana adiban <coughs> delloo na ko ko muy mbégum ñëpp noonu itam la meloon nag an la ànde woon nag mbokkam mu baax ma Sidi Aboubacar Sy nag du Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu ñoom yàlla moo defoon rek cofeel ci seen diggante sëriñ bu mu kutnde ci Njaasaan Alaaji Ibrahima Ñas moom tam daana ñëw di ko seet si fii xalifa cene ba xalifa Seydina Limaamu Laay ñi nga xam ne ñoo nekk fee ca jàmmal ca Siin Saalum ñoom tam daan nañ daan woon naa ñoom ba daan nañ fi ñëw fii sëriñ Ahmadou Dem bu Sookoon chérif ya nekk ca Casamance nga xam ni am na ci ko ñuy wax chérif Makka Aydara kooku moom ko di ko seet si ak ñi nga xam ne ñoo jiite Euh, diine yi foofu ci julli kilifa julli ya nekk bundu te Sénégal géfete euh, penko ak ñi nga xam ñoo nekkoon ngéwul yi kilifa yi diine ak ñu nekkoon waalo ñu nekkoon gànjool ak ñu nekkoon jolof ak benn benn boo xam ne ay kilifa lañu yu am solo ku ñuy wax sëriñ Amadou Cissé bu Pire moom tam ku miinoon kër gi la ak sëriñ Ahabaat Sall bu Louga Alaaji Seydou Nourou Tall nag moom digganteem ak sëriñ bi dafa yàgg lool ndax dañoo xamante boo yàgg a yàgg a yàgg am diggante bu rafet te lépp na lépp lu ma a xew ci Tuubaa mu teew fi bi ñuy julli ji baa ji ñëpp a ñëw ñëpp a ñëw Amadou Ambali sax Amadou Bello sax ñëw na bàyyi ko ni sax Seydou Nour Tall boobu de ñëw na ne ceeb yi ajeen mi ngi ci loxo sëñ Falilou Falilou noonu woyof na sëñ Falilou woyof woyof na ba mu ñettoon sëñ sëñ bi ne ko tëddis kan ci biir te dis gan ci biir te dis gan na ci biir ñu waayoon moom <coughs> ñi nekkoon ñëpp ñëpp la ñëpp la amoon diggante sëñ Babacar Sy ma nekkoon xalifa di Tijaan ci jamono boobu ah, dañ daan téléphonante nga xam ne euh, maa ngi nangu ci Cheikh Tidiane Sy mii xalifa général bu Tijaan yàlla na ko yàlla may ak te yàggal ko fi waaye ci làmmiñam laa nangoo mu ne bés bi ma bis bi ma njëkk indi téléphone ci kër sëñ Babacar Sy damaa dem Dakar indi ay tubaab ak seen i ñu di tubaab yi di yéeg ne ñi mag ñëpp ne Cheikh mii day fa mu jëm ak ñun Cheikh mii day fa mu jëm ak ñun xamisu ko ñu yéeg monté téléphone yi monte fil yi fekk ba Sëñ Fallu am na téléphone Cheikh moo koy wax ma dégg ci ci ci làmmiñam nee man noppi dégg nga daal di am numéro Cheikh Amadou Fadil téléphoné ko mu ne kooku ma ne ko Cheikh ma Tidiane dama lay jox sa mbokku Babacar Sy daal di sëñ Babacar wuy sëñ Fallu ne ñoom ñaar ñu waxante waxante ba seen xol sedd ne bañ noppee sëñ Babacar ne ma day Cheikh di xaw a ban bis waaye tey jii li nga ma defal musuma defal lu ni mel seeta lool sëñ Abdou Aziz nag moom fa moom daal def bu ñaare da ñëw dem Ndindi dem Aliya ndax moom ñoo bokk ca ca ca ca Ousmane ca Mati Mbàkke bokkaat feneen euh, dañoo dañu jax solo la góor gi ay jeexitam ci diggante Touba ak Tiwaawan dàllam masu ca noppaliku jeexite masul far benn yoon mu bëgg Cheikh Mouhamadul Fadul def ko def ko mag def ko kilifa def ko soppe du dugg ci dara te waxu ceeg moom magam ju tedd ju baax ji itam du soxla dara te yëg na ne seenu jotaay mooy mën a tax lam ca bëgg mu am ko te neewul woo leen ma am yónni sëñ Modou Bousso Dieng wala mu wax ko Dramé ñu jaar fa ñuy jaar ba bàyyi Abdou dem Touba buy jukko dégg naa moom ci boppam mu wax ay yoon am na bés ñu woo leen ca Ndar gouverneur général woo leen am décoration yu leen war a defal bu jóge France gouverneur général war ànd kilifa gi nga xam ne moo ko indi doonoon ministre ca yooyee jamono ñu woo leen ca Ndar Cheikh Abdoul Aziz nee na bi nga xamee ne yegg si nañu euh, comme que seeni tur moom Abdou Aziz la tudd mu ngi tàmbale a lettre ak alphabétique bi Sëriñ Fàllu njëkk jóg ñu ne ko noo yow yaa mu ne déedéet Sëriñ Fàllu mooy sama mag mooy sama kilifa ci jotaay bi ñëpp samay mbokk lañ waaye moom laa gën a bokkalte mooy sama kilifa nag daal di jóg góor gi nee na mel na ne sax du ñàkk benn benn yoo xam ne xaw nañu tiisoo xaw loolu waaye bi góor gi jógee rek te ñoo ñooñu am na ci ñu taxaw ñi mu àndal am ma sorong sorong ñett ñett escalier yi dem wàcc fukki chaise jox ko mu toog ñu tegal ko ko ci wetu sëñ Fallu juróom-ñeenti chaise ca des yëpp ñam lenn ca ñam mu àndaloon te amuñu fu ñu toog ñu toog ba mu fa jógee mun na leen gars yi lu ngeen wax gis ngeen teral sa kilifa barke ba ca yàlla def du ko xaari ëllëg ci saa si la koy def la koy wane su fekkoon ne du dama jox sama kilifa cër bi ma ko jox te mu jaadu tawar kon ci taxawaay bi ngeen di te du ngeen xam ñaata heure lay duré maa ngi fàttaliku bi suñu wajur wu tedd wa boroom cër yi boroom maye cheikhul xalifa Sidi Aboubacar si najlu cheikh El Hadji Malick radiyallahu anhu ba mu génne àdduna sëriñ fàllu mbàkke mu ngi génn àdduna moom sidi abubakar si altine talaata àllarba alxames ajjuma rakkam ju baax ju tedd ja toppoon ci ginnaawam di cheikh seydi mouhamadul mansour di magu mawlana al cheikh alxaaji abdul aziz al eh, cheikh alxaaji mouhamadul habib génn àdduna juróomi fan a dox ñeenti fan a dox seen diggante mu fekki ko mu ñëwee jaale si bokk na ci la mu wax ci njaal ma ne Abdul Aziz su soobee yàlla li ma xam ci yow li ma xam ci yow ci bëgg bu mbokk ci di ko dox ak ponk kilif téef sa xilaafa gi dana yàgg dana neex te ci mbaaxu yàlla lépp loo ci sumb ci sa barke baay Cheikh El Hadj Malick ak sa barke baay Cheikhul Xadim Cheikh Ahmadou Bamba loo ci sumb daa ko yeggaleeg jàmm te itam nag lépp léppay sotti waaye lépp léppay sotti confirmer loolu ci ay taxawaay nag waxu ko rek dem waaye confirmer ko ci ay ñaan confirmer ko ci nemmiku bu dee bëccëg cinquante huit muy at ma topp ci seen laxas bu Sidi Aboubacar ak Cheikh Alhaj Mouhamadou Mansour radiyallahu anhum góor gi ne dafay dekkal toolu jagsaaw ba mu ca nekkee <coughs> maa ngi fàttaliku boobu quinze ans laa am Cheikh Seyd Mouhamadul Fadil yónnee ko jiwu wu doy wu mag wu rafet sax danga naan dañu tànn lépp <coughs> boole ca ñaari fasu naaru góor yoo xam ne benn bi dafa weex benn bi dafa xonq <coughs> mat sëkk yu rafet ne nañ ko jox Abdou ne leen ko na ko baye jiwu bi na ko jiyee tool bi te ngeen xamal ko ne Fallou nee na mu ngi sa wet rek loo loo loo nekk rek ma nga ci ak yow daal di jox njaboot daal di jox ndigalu kilifa yi dëkk Tiwaawan ndigal njabootu maam Cheikh Maroumba Guèye ak sëñ Amad Dia Aminta ma fa nekkaloon Cheikh Seyd Mouhamadou Moustapha Mbacke mu jigi mu nekkal fa sëñ Cheikh Mouhamadou Ahmad Mbacke Gaynde Fatma leen joxe naa ndigal lépp xam na sëriñ woote na ko ci liggéey muy jëm ci jag saaw mu jëm ci lu dul ci yeneen ci tool su fekkoon ñu jàpp sama liggéey nañ ko bàyyi te fekk ko ba lépp loole ba lool la mu bëgg ca loole mu woote lépp sotti ci sog a dem sombos sëñ Fallu loolu mosu ko ñàkk xalaat ci dundal mbokk gi ak wëllëri gi wax naa la fu ma gis la mooy jëkk laaj mooy ana sa bàyyi Sidy Lamine moom mooy jëkk laaj yooyu dafa di yu dafa di wëllëri gu yàgg sëñ Fadul nag daan na ko toppatoo ndax amul xew-xew bu njaasaan daan xew def te du yeble moom sëriñ Fadil dafa yeble njaasaan ñetti fan la daan gàmmu ñetti fan mun daan teeru ganale gunge ba ca ganale ga mu yónnee ci Baye Sidi Lamine Baye Sidi Lamine ah waaye man daal sëñ Fallou daal dëgg-dëgg moo xéer moom biig biig rek biig rek mi ngi maa wax xam te sëñ Fallou nga ci Touba mu ni biig rek mi ngi may wax waaw léegi sëñ Fallou ci Touba ba moo yónnee ca ganale ga dafa ne ah waay lii de waay fàtte woon naa ko jox démb de fàcc naa ko jox Sidi Sidi dem leen yóbbu ngeen jox ko kon ñoom bu dul gisu zahir gisee zahir nii sax daan doon gisee ci baatin te loolu wane na ko ah moom nag ak sëñ Babacar si ñoo bokk benn maam benn maam ñoo ko bokk taxoon ñu daan dundal mbokk gi fu nu mës a toll di ko rafetal ndax loolu moo di li nu war seen diggante ak moom dañ ko wegoon bu baax bëgg ko doyloo ko moom itam mu ànd ci lépp lu ñu nekk kenn ku ci ne ci ñoom loo ne ci xewu diine walla looy def di ko jëf ci lislaam bi dañ ko ko yëgal te moom itam dana jëpp ànd dugal ca euh, bokk ca bokkin woo xam ni bokkinu boppam la ca nanga xam ni moom la ma ne ak na nga xam ni mooy jikkoom mooy loo xam ni ca dugg waxtu jot loolu ma sa xew lu caa def dara cuub cuub lañu ci defam ñi nga xam ne ñooy kilifa yi nga xam ne kilifa yi aada lañu ñoom itam amoon na seen diggante rafet ak ñoom surtout ku ñu demee ni Ala Ibrahima Diop grand sëriñ Dakar wala kilifa yu yu mag yi alaaji Mbay Jaan Jagaay alaaji Cerno Wat Mbeng ñoo ñëpp amante woon na ak ñoom gannaaw loolu ki nga xam ni mooy kilifa làbbe yi ñu di ko wax monseigneur amante woon na moom itam ba ma jóge woon na Ndakaaru ñëw gan si ko Touba ci loo xam li sëñ bi ko mayoon audience bu rëy moo ñu bokk fii ci Touba ginnaaw loolu it ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon Euh, ca nga xam ne ay naari Beirut lañu wala ay tubaab tey nekk ci commerce bi ak yaxantu ñoom ñëpp itam dañ doon wutaamanteeg moom ndax cër bi ko yàlla jox ak doole ji yàlla jox tax na ñoom seen njëriñ la woon pour kenn ku ne amanteeg moom amante ba gën ci yow ah ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon ci yooyu jamono yilif réew mi moo xam ci jamono tubaab yi la ak ginnaaw tubaab yi ñoom ñëpp itam xam gu ñu xam ne amanteeg moom seen njëriña tax na ñoom ñëpp dañoo wutoon amanteeg moom amante bu leer nañ ba kenn ku ci danga fi daan ñëw ginnaaw loolu ñi nga xam ñoo fi nekk di doxal politique ci jamono tubaab yi ba ci léegi itam ñoom itam daf leen ubbi loon boppam ba kenn ku ci ne di ñëw di ko seet si waxtu wu jot dëgg la ah, kii ñu wax sengoor ak Mamadou Dia ñoo ko gënoon a jige ba tax na Senghor xamoon na kan mooy sëñ Fallu xamoon na ko ndax eh, wan na ko boppam ca ba mu jafee ndax ca Kawlax la woon Senghor daje fa ak ñi mu doon xëccool kër gi sëñ Fallu